alhamdulilahi alkarim wax ne nañu wax ci xalifa yi ku ci nekk ñaari baat ya nga wax ak mbooloo mi te déggaguñ ko ñu bëgg nag ñu déglu ko te jàpp ko te jëfe ko ginnaaw ba nu sante yàlla nanu ko daan defee julli ci Seydina Mohamed jaajëfal sëñ Bamba jaraw lakkal maam Cheikh Ibra ñaan yàlla mu yokk leen sëñ Saaliw taas nu ci barkeem yàggal fi Sëriñ Muntaxa ba mu àggale liggéeyub Sëriñ Tuubaa bi yokk leeri Sëriñ Sidi Muxtaar ya taas nu ci barkeem te bàyyi fi xalifaam bi ñaan yàlla mu yokk leeri Sëriñ Cerno Juuf Làmbaay taas nu ci barkeem te yàggal fi ab Cheikh Abdoulahi Diouf ba mu àggale li Sëriñ Cerno naaloon ngir jëmmi Sëriñ Sami bu moom lañ koy ñaanale Cheikh Jëmb Fall ba mu àggale naalub Cheikh Ibra jërë geen jëf bi ngeen ma ko laajee ndax lu nit yi war a xam la fi mu ne lu fi nit war a xam te mu koy jariñ ña jiite te ñu di leen déglu te bu ñu waxee ñu jëfe ko war nañoo wax ña ñu jiite la leen di jariñ ak la ñu mën a jariñoo te bañ leen a jariñoo ndax ko jariñ yàlla yàlla jariñ la te yàlla ku jubbanti jaamam yi mu jariñ la looloo waral bi nga waxee ne ma xalifaay sëñ Tuubaa yi ma ne li sëñ Moodu Moustapha ci jëkk mooy taaw bi gën ci taaw yi ginnaaw taaw ba juddoo woon ma dina moo taawu yoonu murit moo tax yoon wi du tas du làqu du yàqu saa bu xëyee di yokk moo fondement jumaa ji am fonte fa moo tax Sëñ Fallu tuwaatiir ko moo tax raay bi te dérapé wut kenn du ko dara moo dëkk daaru xudóor fa nu bindee jës bul xuloo moo tàbbi ci xol yi ba murit dootul xuloo dañuy xéewlu waaye bañ ko waxee loola lépp mu mënoon koo bàkkoo dane waaw loolu di dëgg la waaye ñaar rekk a ma doy muy jub ak dëggu ndax boo jubul dëggu koo mën a doon ak foo mën a sosoo boo duggee ci bàmmeel yàlla dina la jubbanti ba nga jub mu woon la dëgg ndeke gaa yi dégguñu Sëñ Moodu Moustapha te mu mënoon topp lañ ko jëkk a wax ba léegi gaa yi jubuñu dëgguwuñu kon war nañoo roy ca ñaari kàddu yooyu sëriñ Fàllu ne tëll ñu ne ko yaaka xew kaay xewaale nu yomal xëyaaw nga boot nu yóbbu rogganti wàkk ba mu jekk nga jox borom baraag bi mu tàbbal àjjana boo faatoo ba ne ci bàmmeel lu la fa fekk lu du fàlloog bàyyam boo ko du dalay lor mooy borom na am mu am su nee du am xobu garab dootul yëngu nguur ak président ci fàllu lay jaare bàmbaay si ña jox ko mu tàmpeel ko lu mu wax la réew mi wax kenn dootu ko jiite moo dëkk ndindi di def di dindi ku ko dànd mu dindi la te lu mu def fa ndindi yàlla dootu ko dindi moo fal yoonu mu jox leen fond ak fondation ak ku leen di fonde la ku ñuy fawal te dootuñu fulu moo nu jox moo ne ak mooy tere nu mooy suñ fallu bañ ko waxee loola mënoon naa dégg loola ba tax mu bàkk waaye dana tey rek koo xam ne dañ lay denc te xamoo kañ lañ lay denc loo yorati waroo koo denc kon lu waay di def na ko def tey te yàlla tax ndax démb weesu la du delsi te xamoo di nga fekke subaam déet ba tey gaa yi dégguñu loolu ñu ngi denc di bàyyi soxla yu jëm ca yàlla di denc di bàyyi lu yàlla digle di ko def ci lu àdduna digle kon ñooñu dégguñu Sëñ Fallu te waroon nañ koo dégg Sëñ Abdulaat ñëw ñu ne ko yaay attaanu umru ko yedd xuli arfin bi arfin keef ak keef yaa dindi la woon waccee ño def fi loolu dinu ko woon jëfi willaay ya nga ne woon kenn gisee la ba taxam ñu jóg suunu calal ma ne bu leen ma woy woy leen bàmba kuy woy woyal bàmba bàmba rek a ko fi def te bu ko doonul woon duñ ko doon ñu ne ko ba yaa yaa yaa yaay doomi bàmba mu ne waaw ñu ne ko doy na woy ci senegal ndax ba yaa juddoo Touba yaroo Touba màgge Touba masoo génn Touba ba moom Touba ñu lay wooyee boroom Touba nga jaay njureel nga jënde ko ak ak yow Cheikh Abdoulaat ni Sëñ Bàmba fonke alxuraan ba teg ko ci lali or yaa ni fonke alxuraan ba tabaxal ko ay étage ak i kër Sëñ Bàmba danoon fab alxuraan jal ko ci lali or bu tëdd jotee mu tëdd cib der di tagg alxuraan ja yow du Abdoulaye nga moom Touba di xalifaab Touba dond borom Touba fekk ngeen kër guy jar juróom fukk juróom ñaar téeméeri million ak juróom fukk nga tabaxal ko alxuraan di tëdd ki néegi ñax kon ni Sëñ Bamba fonke woon alxuraan ba teg ko ci lali or yow Cheikh Abdoulaye yaa fonke noonu alxuraan ba tabaxal ko kër muy daaraay kabir kon bis bu ñu jéngee sawara ba atte ko wàccoon jamono keroog la ñuy xam ne du Abdoulaye te téye téerey baayam fit wa ca baay ba la yor diine ja ca baay ba la yor lu jëmut ci yàlla ak yoneen Abdoulaye da doog loola bis bu alburaax taxawee ba rasulilaay war ci di bamba fa këram foofa la wax jay jeexee bisub keroog gaa yi bamba yi ñooy jëkk a jaxasoo tàbbi àjjanay fillax waaye góor gu liggéey war a añ yibra faala lay jëkk a fay sàkkat du ñàkk bara la bàyyi laata nu may sunu xara la ba koo gis mu naan cararal laay laata ko jox taalaale dikkoon ko nag liggéey bi mu def kenn du fi tal di taalaale bamba mi tàllal yoon wi ba tax nu tal di taalaale xul wala xat la juddu chamadu lam yelit walam yulat walam yàkkun la ko fan xat mu tabax daaray kaamir di kaamir bu mag ca biir kaamir yu ndaw ya moo laat jumaa ja laataale na ci biir latewut kon Serigne Abdoulaye taxawal na suñu ba waaye ba loola àggee a na koo bàkk waaye dana ñaar yii rek ma doy ku mënta waat ne doo faatu faat waxtook fàtte yàlla waru la ba léegi gars yi dégguñu Serigne Abdoulaye ñu ngi faat waxtu ñu ngi fàtte yàlla bay def li yàlla yi tere Serigne Abdou Khader ñëw xam nga ne ku judduwaale àjjana indiaale ko ci adduna adduna du la so du la saf te sëñ abdu sëñ abdu xaadar moo ëgg si xaat indaale àjjana xaat dellu xaat moo de xalifaak jumaa ji ay ñaar fukki at ak juróom toog xalifaak sëñ Tuuba onze mois kon kooko xam ne li xew te ko mu mës a jiite yàlla yërëm la moo tax mu féetewoo jumaa ji mu xuus ci biir taw ba di di jaamu ji yàlla gaa yi dab ko sol mu fil ko ne xuus ci taw jëm ci yàlla moo ma gënal dugg ci bàmmeel muy tàkk te gaa yi dégguñu Cheikh du Khader ba tey ñu ngi naan day taw ba julli jiw ba Baara ñëw Serigne Saliou ñëw ñu ne ko yaay boroom njurul yaay borom ndookaa yaay borom xelkoom yaay borom xay gi yaay borom xàbbaan Serigne Saliou li président yi wut te mënuñu koo am ak bailleur de fonds yeeg tubaab yi yow yaa ko jël def ko ma di tool. mu dim xel akam koom réew bu amul koom day daanu du am développement du am avancement emploi du juddu bu ko defee sam waa réew sam waa réew xeeb la boo amee am koom te amoo am xel boroom xel yiy jóge ci yeneen réew yi ñooy jariñoo sam koom say réew bala Sëñ Saaliw jël ko def ko mu di toll kum fa woo mu wuy ay xëy ak ab xol ak ab xel boo fa jógee loo dugg mu woom koo woo mu la boo fa goree rat yàlla da lay ruus nga rat ci kanamam mu jox la biyu ruus foo jëm ruus dootoo ruus boo fa goree sa xew xew te dootoo xew xewi boo fa goree bisaab yomal xayaam kenn du la isaab boo fa goree looro dootoo looro ci sa dund boo fa goree di butoon dootoo sonn boo fa goree lëgg-lëngoog yàlla boo fa goree salgof yàlla ëf la ci ëtt boppam boo fa goree dimb dimbali say bokk boo fa goree déem kenn dootu la tiim boo fa goree sump yàlla sopp la si porté la ubbi la porté xéewal yi boo fa goree ngeer mel nga ne ko geer badar boo fa goree gi gis doo tamit gi gis tel foo jëm mu mel ni tëbës gi boo fa rek ca xat dootoo xat foo jëm ñu xajal la waaye mu ne de ñaari biir yi rek a ma doy sa biir bàmmeel ak biir bi la yàlla bindee sa biir bàmmeel ak biir bi la yàlla bindee biir bi la yàlla bindee feeg yaa ngi defal yàlla li ko neex di topp ak jaamu yàlla am su may départ waat ci Sëriñ Saaliw waaw bi ñu ko waxee loolu dane teg daan waaw waaw waaye nit day ñaari biir rekk la am biir bi ko yàlla binde ak biir bàmmeelam biir bi ko yàlla binde bu ca yoonam ne feeg mi ngi jaamu yàlla tey def li neex yàlla yàlla di ca def dara te mu lew waaye biir bàmmeel loo fa deful doo ko fa fekk gaa yi fàtte nañu biir bàmmeel bay lekk ci biir yi riba ak alal ju leewul kon dégguñu suñ sa sëriñ baara ñëw ñu ne ko yaxlal baari dondu na ko kan ko tudde yaxlal baari wujur lu baari baari saqaay ndeke bar sàq fa jàq baaraa làq daa toppul soq yi ak sàq yeeg sàqam bi moo tax mu mën a làqu jàq baat sàq suñ baara daal di ne waaw ñu ne ko yaa jël Touba def ko ni Madina fanweeri weer yu manqué yu yu yu yu jël yu liggéey fanweeri at dem màkk lu mënta wañ yóbbu màkk ñu mënta wañ di Mamadou mi ñu takkal la la ma man-man nga dindi baaraas yi ba ndox mi kenn mënatu koo baare muri yi dootu leen baare ba pare mu ne nan sax ci tuub te nangoo jaamu yàlla te lu waay yéene boppam na ko yéene moroomam wax jàngoongu ku waay jëm na ko yóbbaale gaa yaa ngi tooñ te tuubunu li nu yéene seen bopp yéenewuñ ko seeni moroom saxuñu ci jaamu yàlla ci ñu ngi yàqante kon dégguñu seen baara so allah akbar sëriñ ñëw la Bamba bëggoon mu teg ko ci loxoom muy bennoo ñëpp déggal ko mu déglu ñëpp ma ne ko yaataaral te tardé woo mosoo def lu yàllay tere taxawaal woo ci territoire bi ba jot dara ngay Sëñ Bàmba ji tere nu teral nu ngir bu ñu tëralee teralaat nu lakkal fallu yaa muxtaar yàlla nga Sëñ Fallu aw tur kon bu fi baara jógee yaay toog Sëriñ Sidi Muxtaar Siise ñëpp dem dëkk ngànda du gàntu kenn te mas ta gàntu dogalam yàlla ku ko mas a fekk ngànda mu gàddul la say soxla dem de dem dëkk taw féex ku ko fa fekk mu taw la mu taw la mu féex ba nga dib seex moo noon kiix seex njaay def ko seex te siis njaay seesu te siis ba mu dem mbàkke kajoor ñu sàng comme njoor fa la seex Ibra gisee ak sëñ bàmba ndeke fa la gisee gaa yi ba def bennoo sëñ Sidi Muxtaar topp loola lépp mu ne xaalis poson la te xam nañ ne poson ku ko lekk dee ba tey gaa yaa ngi lekk xaalis bi te lewut kon dégguñu sëñ Sidi Muxtaar daa bëgg laay la mu bëggoon lépp nag yàlla defal na ko ci xalifaam yëkku na jumaa ji yow ma jumaatul akbar yow ma yow ma karbala yow ma yow ma alxiyaamatul akbar yow ma mu jël juróom yi di juróomi xalifaay sëñ Tuubaa yi yóbbu ko ndakaaru ngir mu sowe leen muy ma saalikil jinaan mësta saalik te xamoon na la sëñ saaliw liggéey kon ñëpp a ngi saaliki te kenn dootul saalik sëñ saaliw dugal ko ci salon bi solal ko ci salon bi mu jox ñëpp paar ba kenn mënatunoo waar mu teg nu ci kippaar ak bàmba dem ku ñam tàqante ku lu ñu liggéey ba dootul yàqu ñu defar ko ba muy benn ñëpp booloo di benn di déglu yàlla nag moom muy déglu yàlla ñuy déglu yàlla te ku ci njëkk a dégg yàlla dégtal ko sa morom te du ko weddi mu bàyyi ko nag ne bu ñu ko liggéeyee ba mu dootul yàqu ñu defar ko ba mu jàkk te dootul jagadi ñëpp jublu ca ca muy njariñ dañuy indi mbég mi mu bégal ñépp suñ Muntaxa mi taxoon ak moom taxoog yàlla taxoog yónnent bi taxoog suñ bamba ba suñ bamba taxal ko yàlla moom la ñu tax xam te ko mu ñëw di mbég mi mu doon sëriñ Basiru toogal ko kon suñ Muntaxa ko taxoog moom mu taxal la yàlla tey it ak taalibe la yore ndax ak bi rek lañu yàlla soxla woon moom la suñ Tuubaa woote woon mu ñëw ne man ab taalibe la yéen sama doomi sang yi li may liggéeyal yàlla ak yónnent bi seere laa koy def ci yéen kon wax jàngoongu kon a wax mooy du ma def dara lu ngeen ànd te lu may def jiital naa leen ca kon nañu ko dégg bu kenn defati lu say mbokk àndu te yàlla àndu ca te looy def nañ nga ko jiital yàlla ak yónnent bi ak Sëñ Tuubaa buñ ko defee la la la lañ ñoon la woykat ba mënoon Sëñ bu Sëñ Basiiru moom bu mu toogee xalifa bu ko neexee mu li suuf si muuraake am na nu muur mooma ndax liggéeyal yàlla liggéeyal yónnent bi liggéeyal Serigne Touba liggéeyal Serigne Basirou liggéeyal Serigne Saliou liggéeyal Serigne Abdoulaat liggéeyal Serigne Abdou Khadar liggéeyal Serigne Mourtala liggéeyal Serigne Baara liggéeyal Serigne Sidi Muxtaar tey la mu doon liggéey lépp wàcc na ci moom te mosu cee yàq dara mosu cee làq dara te bu xëyee yokk ko kon na ñëpp déglu Serigne Mountakha.